ba tax na tey bu njaago nekkee ci état boobu kon lépp moom la loolu nag nekk lu ko métti ba tax mu taxaw comme xam ni moom a mooy njaago di bu ndaw ñoom ñaar ñëpp mën nañu ni ay vrai xarit lañu ñoo ndax ku ci nekk da ngay bëgg sa morom ndax ku ci nekk jàpp nga ni loolu moom mooy sa devoir envers sa morom ba tax na ñoom ñaar ñëpp loolu la def seen xel xel te nag ñoom ñaar ñëpp bëgguñu seen morom kenn sëngeem ci ba tax ku ci am problème wala nag ku ci manifeste ni am nga problème ñoom ñaar ku ci nekk dangay ngay bëgg a jóg taxaw daal di koy lijjanti ba mu sotti ndax gis nañu ni ko bu ndaw defee ak moom mi nga xam ni moo di njaago waaye njaago itam euh, noonu la ko bëgg a defee ak ki nga xam ni euh, moo di euh, bu ndaw ndax bëggul benn yoon ñu wax bu ndaw dëgg bi ñu jàll ci meer njole moom it dafa jàq tiit bay bëgg dee ndax jàpp na ni rek buñ tasee yaakaaru bu ndaw lu métti mën naa xew wala naka loo xam moom da koo jaaxal ba tax mu koy xalaat ndax xamul rek nan lañ mun a waxee ki nga xam ni moo di bu ndaw euh, dëgg bi ñu jàll ci gis ni njaago moom dafa ñëw di proposer sawru euh, ngir mu takk bu ndaw donte mariage temporaire lay doon waaye nag ngir mu jàppale ko euh, li nga xam ni mooy maladie wam waaye li des ci dundam ngir nag mu mën a heureuse waaye sawru bëggul dégg lu ni ba tax na ki nga xam ni moo di sawru bëgg bàyyi lépp ci suuf ndax moom bëggul bu ndaw tey nag xalaatul sëy ak koo xam ni bëgg ko muy loo xam ni moom sawru dañu koy comprendre ndax yaakaar naa ni rek sama boo xamal a gënal du bañ naa la te nag bëgg jàppale eh, nit warul tax yow tamit ngay sacrifier sa bopp ndax comme ni ko sawru waxee néegu sëy eh, dafa xat torop te koo bëgg rek nga ko mun a bokkal waaye boo ko bokkee ak koo xam ni bëggoo ko eh, ci rek souffrance ngay dëkk waaye nag doo dëkk mukk ci bànneex ñu jàll ci bàjjen moom nag gis nañu ni pare woon nag ngir wax dëgg bi bu ndaw waaye maaku da koo interrompre ba noppi nag wax ko ci résultat yi résultat yoo xam ne nag moom maaku rek moom moo ko gis amul keneen koo xam ni gis nga ko mu mel ni kon maaku am na mu lal ba tax la ni ko noonu yaakaar naa du ko nëbb kenn ba koy génnee kër gi kon moom mi nga xam ni moo di maaku soo demee li xew plan bu mu lal la ngir euh, euh, ki nga xam ni moo di bu ndaw mën a sëy ak sawru ndax moom mu mën a euh, sëy ak ki nga xam ni moo di njaago ñu jàll ci maire Ndiolé moom na comprendre na lépp tey décision bi nga xam ni njaago jël na ko nekk na loo xam ne mu ngi ko ci soutenir tey nag da koo comprendre bu baax baax waaye gis na ni itam njaago nit ku baax la ndax yaakaar naa nit ku baax rek mooy xool bënooru moroomam di ko jiital di ko teg ci kawam ndax jamono ji ñu toll yaakaar naa raar na trop ndax ku ci nekk rek sa intérêt moom ngay jiital waaye njaago doxaleewul noonu loolu nag neex na bu baax a nga xam ni moo di maire Ndiolène euh, moom mi nga xam ni moo di maire Ndiolène dem waxtaan ak sawru ngir conseiller ko ngir mu takk euh, bu mu mel ni kon moom mi nga xam ni euh, moo di sawru mujjee naa d'accord waaye nag ci ay condition wam waaye ay condition wam nag mel na ni kenn nangu ko ci faale ndax xam nañu ni munta nekk ndax sëy moom bu xasee ba am moom yaakaar naa sa jabar ak yow alaakulli aal yéenay dëkk kon moom mi nga xam ni moo gënal tey nag lu métti la waaye comme li ñuy wax rek yaay moom kenn mënu koo euh, bañal euh, surtout nag euh, yaay joo xam ni daf la bëgg la place ko ci mel ni mère Ndiolé nga xam ne ni mu nekkee ak sawru yaakaar naa ni mënul ñaan sawru dara muy bañ ñu jeexal ak bu ndaw moom nag li xew jaaxal na ko trop ndax bu gisee comportement sawru gis comportement waa kër gi da koy jaaxal xam na bu baax a baax que ni am na lu xew dañu ko ko bëggu la wax waaye moom it mun tax fexe ba xam li nga xam ni moom moo xew muy loo xam ne lu ko jaaxal la ba tax mu ci épisode 11 bu série contre polygamie ñu jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si cloche de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf